politique mooy ñëw enrichir moment moment nga enrichir sa bopp enrichir sa askan dem sa yoon. am na ñu bëri perception boobu lañ am mm. ci politique. yow nga nekk ci quartier bi nga nekk ci quartier bi yow yaa ngi liggéey suba ngoon. Mm. wala nga nekk un administrateur wala nga nekk un employé am mm. salaire. koo xamante ni ci benn mandat rek mu nekk ci un multimilliardaire te xamoo lu mu liggéey. loolu crime la. day tas réew sax. doy na waar mais en tout cas euh, man ma ñëw ci ñaari question rek xam naa ne nous en sommes presque à la fin de l' mais euh, ñaari benn bi mooy en ce qui concerne la campagne beneen bi mooy itam wax comme que dañuy wax nañu Basirou mooy. Jomaay euh, mooy Sonko Sonko mooy Jomaay léegi yaa ngi ciy yaa ngi jàppal tànk. coalition Jomaay. te te te bu yàggul dara ñu doon wax ne yaa ngi doon dem di seeti ji Ousmane Sonko mënoo ko woon gis. ba tey ba tey ji boo koy ca ca biir salle d'attente dama teel a dem nag parce que xam naa aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. procédure ah sept heures et demie fa la ma fekk. xëy na enregistré amul problème. ne ma li nga yor sax la dama ne ko doon livre yu ma koy may la. ak yu ne mel ñu ne may amul problème ma ñëw toog di xaar. mais comme xaar bi dafa xam dafa amoon ñu ko doon seet si aussi. Mm-hmm. xam naa ba président yeewoo. ñu informé ko. <laughs> <laughs> ca biir salle d'attente bi lañ ma fekk. permis bi nga xam ne enregistré woon nañ ko de moom lañ ma indilaat ne ma tampon bi leerul. donc. wax bi ah, waaw waaw waaw bi enregistré woon ko ko donc euh, bon. yooyu yëpp aussi yooyu yëpp dafa war a waaw dañ ne tampon bi leerul et cetera ma dem ca juge ba ne ko jox ma boobu ba tey jox ma mais. amoo benn sentiment ni le président Macky Sall daf la ragal comme opposant maanaam tey. danañ nangul beneen opposant mu dem gisi Ousmane Sonko mais bu dee soxna Aminata Touré la non non il est nu mu tudd il question mu gis ko mën nañ nangul beneen opposant mu jàll ci parrainage dem nekk candidat mm-hmm. mais bu dee yow la noonoo non euh, warut jàll selon yow lan moo waral crainte boobu noonu ba lu bëri lu ñuy nangul say nawle opposant yow dañ la koy ragal loolu de moom rek est-ce que dañoo xam sa capacité de combat macha allah wala dañoo xam ardeur bi ngay demee ci yenn bataille wala lan lan la ñu ragal parce que lii man laaj la laaj bu sénégalais yu bëri am la lu souvent li ñuy nangul ñeneen ñi comme opposant yow duñ la ko nangul. waaw ah, ah, mais bon man man jàpp naa ne ci ci ci wàllu tampon certainement mais mais mais li nga xam ne moom laa ci tiré mooy. lu dul yokk ma ci taxawaay du ko def. tout parce que man noo may nu ma nekkee ci combat nga may nga ma ci songe may gën a taxaw di gën a avancé. yàlla nag moo moom victoire ak défaite. waaye nag euh, man doo doo lu su ma ne dama ci ne. dama ciy xeex ba tëdd. di rawati nag lii ñuy def nii mais mais yoon la. yoon la ba ma amee 14 ans lay politique ba léegi. voilà donc euh, looloo ci nekk amul nu ma songewul nag président Macky amul nu ma songewul. voilà mais man it aw ma nu mu amul nu ma ko songeewut moom amoo ci des fois benn benn sentiment de regret nguur bi nga xeex ngeen jot ko nga amoon ci taxawaay ci traque des bien mal acquis ni ci taxawee woon jiite gouvernement bi tey boo demee ba gis nguur boobu hmm. mu doxalee nii doo ci am benn sentiment de regret maanaam jur sa doom yar ko ñeneen récupérer ko ci sa loxo def ci non non c'est surtout ni mu terminé woo moom kay voilà kay xol bu xol bu metti nga ci yam parce que ba ngay ba ñuy tàmbali man dama bàyyi Nations Unies bàyyi suma carrière amoon fa contrat à durée indéterminée ñoo ànd ak moom donc ñun bu ñu sañoon heure bi voilà Sénégal ci beneen niveau lay nekk du ñu def la une internationale dans le mauvais sens li nga doon wax sànq président Macky Sall il s'est retrouvé au banc de la communauté internationale mm-hmm. Mm-hmm. amul ku ko rafetluwul mm. même français yi ci doon yox yox yi sax dañoo mujj xaw a dëgëral parce que gis nañ ne le monde entier voilà ça donc euh, bien sûr di nga ci am di nga ci am di nga ci am xol bu jeex parce que bëgguloo kenn musuma xalaat ne dañuy wax waxee ay waxu troisième mandat man ma bàyyi woon sama liggéey jël congé sans solde ñëw di jàppale opposant buy xeex troisième président moo tax loolu ah, c'était impossible pour man ma koy jéem a ba noppi dafa baaxuloon ci réew mi kooku ce n'est aw ma ci regret en même temps parce que jàpp naa ne participer naa li ma mënoon ci aussi ay avancé mm. parce que man bokkuma ci ñaan président Macky Sall defut fi dara kooku moom d' accord. non waxuñ loolu mais. Euh, voilà euh, Ismaïla Madior Fall regretté yow yaa ko ak kii yaa ko ba nga yoree kii yow yaa ko invité woon. <laughs> boole ko ci sa kuréel bi <laughs> conseiller ko fekk dama ko dama dañ ko jëloon consultant. consultant ministère de la justice. Euh, boobu ma nga université. oui alors bon mu discuter ak moom mu naru ko am xam-xam ñu war a supprimer le Sénat. oui. bon kooku sax du ma ko tudd. ki nga xam ne moo doon conseiller président bëgg a indi affaire bi pour mu doon ay sept huit mois. Hmm. ma ne ko man président jàpp naa ne lii lu ñu war a mën a def la parce que boobu aussi demand la woon parce que si Sénat bi amuloon benn njëriñ et cetera yu mel noonu ñu soxla voilà ñu soxla woon aussi xaalis bi pour def ko ci mbënd meeg yu mel noonu mhm. du ma ne sax amul benn njëriñ parce que loolu du cër aussi mais euh, vraiment munoon on pouvait se passer du Sénat <laughs> on ma ma woo ko laaj ko et cetera mu voilà ni ma discuter ak moom parce que man toujours damay préférer laaj ñi am xam-xam. Mhm. parce que nit mun a xam lépp. c'est pas possible président mais moom vraiment lim ma expliqué euh, war nañoo mën a dem ci suppression wu Sénat te du doon procédure bu compliquée ni ma ko déggee nii. Mhm. président recevoir ko ak man euh, effectivement ñu suivre procédure boobu ba supprimer le Sénat. Mhm. conseil juridique bi président Macky Sall amoon di dem ci benn affectation poste internationale. Mhm. ma proposé ko président. mais mais àddina c'est comme ça. àddina noonu la àddina noonu la àddina àddina donc. voilà voilà voilà àddina noonu la. tey noonu noonu la demee que yàlla yàlla da ko jaarale ci man rek mais mënoon ko jaarale ci keneen. donc bu xëpp xëppalee bëj rek ma ne ma ngay interpréter de ma ngay ma ngay changé loi. non nit ñi tey tey moom gis naa <laughs> euh, ma ko benn question. ak ñoom Abdoulaye benn laaj rek laa ko bëggoon jox mu daaneel ko. mooy benn constat la Sénégalais sénégalais yëpp def mooy acharnement bu parti démocratique sénégalais di def jëmee ko ci yow te lay bi taxawul ci dara mhm. ndax ku am xel di xalaat mënoo ne parti démocratique dafa am contentieux ak madame Aminata Touré mhm. parce que moo nekkoon ministre de la justice mhm. ci période bi ñuy def traque des biens mal acquis ñu ne ñoom seen candidat ci la subir dégâts yi mu subir mais ñëpp xam na ni président mooy mooy mooy coordonner action gouvernement bi. Mhm. mooy joxe directive yi. traque des biens mal bu amee moom la neex. Mhm. suñ demee jusqu'au bout moom la neex. Mhm. waaye ñoom bàyyi nañ ko fa nangu delluwaat ak boobu juboo ñëw na yow yaay seen problème. <laughs> parce que foog mu am lu ñu teg ci seen i loxo militant mais seen i militant sax gëmmuñu leen. non non c'est pas possible seen militant gëmmuñu leen. <laughs> Euh, moo tax politique bi. façon bii moo war politicienne bi moo war a moo war a moo war a moo jeex nit ñi nekk ci voilà sincérité bu ñu d'accord lee ci ay programme lañ dul d'accord ak ci ay vision mais bañ koo def affaire personnelle voilà et yenn yenn même yenn attaques yi mm. Macky Macky leen koy sant ah. <laughs> xam naa ko da gis ñu lay attaqué ci ay plateau da ngay xam ñi leen koy sant directement. mais da ngay xam ne loolooy àqu engagement politique. eng mm-hmm. àqu engagement politique. voilà loolu la quoi di nga am ñoo xam ne àddina doon na am ba jeex. wala mm-hmm. duñ la xam doo leen xam voilà du ngeen xamante du ngeen daje du mm-hmm. ngeen et cetera mais bon comme engagement public noonu la mel day am am asaka day am sacrifice noonu rek nga koy nga koy jàppee. Euh, mais militants yi gaw ma ne loolu loolu mu ngi ci seen loxo waaye la ma ci gis mooy loolu yëpp melul ni sotti na de. <laughs> non non sotti mujjul sotti. sotti ah def ah, yi ñu toog ñu ngi. Ah, non non c'est vrai voilà yi nag aussi c'est ça leur problème mooy dañu dem ba sénégal yi raw leen. dafa am déconnexion bu dafa am déconnexion bu mag a mag a mag yow booy jéem a voilà naan yaa ngi ci ay deal ak yu mel noonu hmm. boobu ñoom jiitu nañ la bu yàgg ba noppi dañu sonn sax ci façon politique bi surtout la jeune génération dañu sonn ci façon bi ñoom li ñu bëgg mooy politiciens yi ñëw régler les problème xaalis bi ñu leen jox pour ñu liggéeyee ñu bañ koo sàcc yóbbu seen kër ñu euh, gis progrès gis mm. voilà am fierté ci seen réew façon boobu la ñuy xaar surtout humilité quoi voilà euh, def tour de table rek daal di tàbbi ci moom mu jeex waaw mais mais euh, une chose qui essentielle parce que joriñ da ko wax mu tontu ci mooy en fait la femme combattante mm-hmm. te loolu dafa am solo te man j'ai toujours exhorté les femmes. Mhm. surtout bu ñu naan femme leader femme d'entreprise femme intellectuelle dañoo war a ñëw dugg ci langue politique bi. dañoo ñoo waroo fekk ñoom ñoo fekk ci ñoom Aminata Touré. ci langue bi bokk ak ñoom langue bi. Mhm. il ne faudrait pas que ñoom ñu toog rek di wéy di bëgg jouer rôle yi ñu daan jouer. te que dañuy fàtte ni femme Sénégal jigéen dafay am solo. Mhm. surtout ci langue politique bi. gis nga politique fu mu yegg dama jibi politique fu mu yàgg jigéen ñi dañ see am pàcc bu rëy boo xam ne dañ ko joué ma ne même indépendance Sénégal on te mm. parlera toujours des pères des indépendances mais on ne parle pas des mamans des indépendances mm. ah si ah ay ñoom Caroline Faye elles ont joué un rôle essentiel ay ñoom Adja Cumbe Sam et consort mm-hmm. du jeexuñu si mm-hmm. donc man je dis encore une fois quand tu des femmes aussi courageuses mm-hmm. ba pare nag tey mënoon nga toog sa kër yàlla may na la wërsëg may na la nga am carnet d'adresse fu la neex dem mm-hmm. nga dem ba dara ñàkk ko nga ne xaaral ma dem tëddi toog mm-hmm. mais dëkk da lay jaral mm-hmm. pas-pas boobu defe naa ne nag ay la yewoon euh, au delà de maanaam Aminata yàllaal yoon bi Bawol ay Aïda Mbodj et tant d'autres yoo xam ne tey jii nii véritablement dañoo nekk référence si langue politique bi te je pense que jigéen ñi nga xam ñu ngi seeraan toog seen kër yi bu ñu dugg rek yem si militante je suis ñëw rek ñëw ni président de comité d' organisation. Hmm. chargé de la propagande. Hmm. gis nga yooyu jamonoy parti socialiste la fi woon loolu xewi na. on a man je man je man je veux un Sénégal où l'on a beaucoup de femmes chefs de parti. Hmm, si man man man man je milite pour ça. bëgg naa gis coalition bu dajale ay parti la présente le euh, ki jiite coalition bi nekk une femme. il faut quand même que ñu yegg si loolu Cheikh Ousmane. parce que itamit on a des femmes. à l'image de madame Aminata Touré yoo xam ne sur plan international elles ont des vitrines mm-hmm. Mm-hmm. des vitrines mm-hmm. par rapport ak lañu ñu yóbbu comme valeur la ñu toogee comme valeur ba ba transmettre ko ñi nga xam ne bokk ñoom ak ñoom aada ak cosaan ñuy root ci ñoom lu bari ba koy jëfee te jàpp naa ni nag loolu on en à l'appel il faudra que il faudra quand gis nga il faut lever ces stéréotypes là culturel ak yooyu naan noo jigéen warta lii jigéen warta lii gis nga la Pakistan moo ñu ëpp Pakistan moo ñu ëpp. moo fa moo ñu ëpp si nombre si wàllu jullit. Mm-hmm. mais benn Azir Bhutto laa ma dirigé. Mm-hmm. oui oui. yaa dans d' autres pays nga dem fa yaa ay jigéen na ñoo nekk nañ fa. waaw jiitu waaw jiitu. Mm-hmm. dans d'autres pays modernes on a on eu euh, ay Margaret Thatcher ay Theresa May et tant d'autres hmm. mais aussi il faut que ñu naan rek imagine-toi on te dit c'est un événement qu'une femme dirige une institution ñu événement lay nekk chez nous doit devenir anodin fi ñu toll hmm, non je dis ça doit devenir anodin tey c'est malheureux que sur vingt qu'on en arrive à avoir deux femmes hmm. c'est véritablement dommage malgré le fait que man damay dama ŋaññoon le le le le système de contrôle parce que pour man y avait pas de transparence dans le non dans le système de contrôle par rapport ak ñu war a jàll parrainage et je maintiens ma position je maintiens ma position mais daal je dis encore une fois les femmes au Sénégal gis nga génn leen si li leen li en fait lu ñu bëgg dugg je parle pas de bon femme émancipée comme ni ñu koy waxee avec euh, euh cette européena européanisation xam nga de nos de de nos de habitudes de de nos mœurs et ak yu demee noonu je parle pas de ça da ngay gis ñoo xam ne ñu ngi si langue bi te la ñu yor comme valeur te mu ñu bokk ak ñoom ña ngi koy moom la ñuy dundee di defee si politique mm-hmm. mais nag avec force et conviction. te jàpp naa ni nag euh, loolu dina am solo kon boog dañu koy jaajëfalaat bu bari rek. voilà jërëjëf ah, ñun soxna si moom. ñu ne on t'estime bien man ak suma soxna tey ma ne ko Aminata Touré la ñu am mu ne ma maa lay yóbbu. am <laughs> moo tax mu ñëw tey gis nga musuma gunge. <laughs> te musuma gunge. <laughs> musuma gunge gis nga ngi ci biir bon kii bu baax dañ lay suivre vraiment on s'intéresse beaucoup. Euh, moom xam naa ni peut-être moom FAO la nekkoon quoi. Nations Unies donc euh, xam na wàllu agriculture ak bagage développement. tu vois bon man bon. et puis je félicite aussi ni ngeen rejoindre Diomaye président bi ma damay ragal ni sax est-ce que du yéen a tax Macky aj élection yi parce que coalition Macky daa daa jékki-jékki affaire yi jàll mu gis gars yi ni ñuy adhéré mu tëdd xam naa bopp bi metti rek mu yeewu ne suñu bopp day metti damay aj élection yi gars yi na ko nag sa boppay metti mais suñu bopp mettiwul quoi <laughs> parce que li daloon li si Anta Diop daan wax naan aliénation culturelle moo ñu topp parce que nit ku ñuul ñi dem nañ ba nga xamante ni gëmatuñ seen bopp ba euh, bu leen tubaab bi bàyyee sax dañuy dem ba ci buntu kër gi delluwaat ginnaaw parce que duñu xam fuñ jëm duñu xam ke loolu am ay hommes politiques yoo xamante ni dañu décomplexé daf dañ koy soxla parce que dañ soxla ay leader comme ni ñu koy waxee boo demee Europe da ngay xam ni yàlla benn doomu aadama la defar defarul ñaar jëmm la ak xel ak xol li ci des yëpp jikko yi ñooy différencier ak xam yeeg sérénité yeeg dëkku yeeg yooyu daal Euh, que ni euh, keneen du jógee ci bitim réew ñoo defaral ñu réew mi ñoo ko mën a defaral suñu bopp te dañuy soxla góor dañuy soxla jigéen pour defar ko tey jii nous some des musulmans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko ba mu demee du ubbi màkk première fois bi waa màkk yi ne ko doo dugg ba ko yàlla ne dellul ginnaaw mu delloo ginnaaw saxaaba yi ñëpp dañoo bañ ab soxna moo ñëw jox ko conseil ne ko watul nga dellu yow mu dégg ndigalu soxna si ba mu wotoo delloo ci la saxaaba yi commencé wat kon jigéen dafa am maanaam xel mu rafet ak jikko bu rafet ak euh, maanaam loolu càgganul ci góor ak jigéen daal am na yenn discours sax yoo xamante ni discours retard la quoi pour man puis bon j'ai fait en Europe euh, pendant vingt ans mosuma fa dégg baatu dialogue mais pour pourquoi fii ñuy dégg dialogue parce que fële c'est les lois et les règles qui la <laughs> <laughs> donc euh, ñu ngi lay ndokkeel. di la ñaax di la dolli doole de sa objectif ci dëkk bi yàlla na ko yàlla matal quoi. <laughs> jërëjëf jaajëf merci <laughs> beaucoup Diori Ndiassé mais mais mais euh, Mimi euh, doo dem tamit te neewuñ la mm, campagne bi noo ci fas yéene soobo nga miin lool campagne xam ko yàgg nekk itam directrice de campagne et si la coalition Diomaye président ne la woon kay nekk directrice su campagne Euh, Diomaye Faye ndax di nga. <laughs> loolu moom journaliste yi ñooy laaj ñooy laaj li ma li ma la mën a wax daal mooy dinaa ci dinaa ci soobu parce que man du ma euh. ma jàppale nit ba noppi toog rek yaafus non non non. mu nekkul directrice de campagne lu ma ci war a mën a def. danaa ko def defee ci jamono non lu man lu ma ne du ci nekkantu. lu ma ne du ma ci nekk nag. dama ci de ba ba jeex loolu ma ci dugg. benn ci ñoom ñaar lay doon ma tax Macky ragal la ko. Eh, waaw mais bon loolu day mu nga ko mais daal li li aussi li aussi sëñ Abdoulaye wax. am am na solo ci wàllu soxna yi. Mhm. mais dafa naa ne di nga lim. Eh, ndate yàlla ak jëmbat parce que ñooñu ci ñi may inspiré la ñu bokk ah, son maam waalo waalo la aussi Khady Diaw eh, voilà donc donc jigéen dafa <laughs> <laughs> <laughs> donc nit euh, nit jigéen yàgg naa am taxawaay fii ndax ci ci sëram la commencé jëmbat mhm. voilà dal di tëkku feder euh, rakk ji ñëw topp ci mhm. dem ak guerre bien que sax perdre na parce que loolu lay wax combat moom dem ci rek def ci sa kemtulaay yàlla mm. yàlla moo yore victoire wala mm, défaite voilà donc soxna yi Sénégal aussi vraiment ñoom ñëpp ñu ngi dagg ay buumu gàcce yu bëree bare bare bare yu bëree bare ci mm. domaine yu bëri souvent sax dañuy del bàyyi gin voilà doxe ginnaaw bàyyi góor ñi ñu jiitu loolu def naa foofu nga leen di ñaaxee eh non yegg si leen nag yéen tamit parce que yëfi nag au fond aajuwul nga doon góor wala jigéen def naa taxawaay rek la laaj xel mu rafet la rek ah, ak taxawaay jikko bu rafet taxawaay way loolay biir ah. voilà lool lool loolu la laaj yéen it ñu masawu leen ah, la presse parce que régression yi ñu doon wax defe naa ne ku ci ne voilà jël ngeen ci jël ngeen ci seen dose tamit. <laughs> voilà ba ci retrait ay licence ou télévision yooyu moo waratu la nekk. dañ ko ci Sénégal bi nga xam ne. dañ ko visé woon ci manifestation. wallaay wallaay wallaay wallaay moom lañ tiré woon mu doon def a baax Papa Wali félicitations et koy masawu. Mhm. donc euh, vraiment noonu la noonu la yëf yi bindoo. Mhm. Euh, waaye ba tey am yaakaar ci suñu réew. lu mu metti metti dañu ci am yaakaar. te du sax du yaakaar nii rek en l'air dëkk boo xam ne yàlla jagleen lañu gaz ak pétrole gaz la ñu gën a jox. Mhm. te li ñuy dégg ñuy wax ci gaz dañu naan yàlla na ant yàlla na antu waay parce que ni mu toll. Mhm. kenn mënu ko imaginer. Mhm. donc Sénégal bu nu ko tegee ci yoon mu doon état de droit. ku ne gis ci sa bopp. perspective yi may gis. macha allah perspective yu am solo la. alhamdulilah moo tax ñu war a am stabilité parce que loolu.